Mmh. bienvenue sur suñu gox gi fii leen jàmm ak suñu gox alors mënuma gis ñoom ci seen répartition ñu jël benn journal dong jox ko vingt millions mmh. benn journal benn ma ne may leen moom ba pare bi may wax mmh. waaw ëpp dàqalewul mbaam ci noppam waaw mënuma comprendre ñu jël benn journal jox ko vingt millions jël benn télé jox ko vingt cinq millions jël benn journal jox ko vingt et un millions xaw mhm. ñun li ñu yor yëpp ñu boole ko jox ñu trente millions mhm. bëy la mu doon lekk ba sax ceeb sikkin mhm. mën na caa góor ba dee fekk ko fa c'est très simple man këccoowuma gedduma il faut qu'on soit très clair am na loo xam ne lu ci nekk ak fañ koy waxee fañ koy nasee fañ koy nocc mm-hmm. lu ñun dong ñoo jëlul mm-hmm. am na ñeneen ñu jëlul mm-hmm. am na ñeneen ñu jëlul oui donc yëf bi du euh, dañ koy jël dañ koy séddoo dañ koy nangam nangam c'est pas ça trente millions neex na ku ci nekk boo ko mënoon plus usine trente millions soo ko jëloon tey c' est un quart wala c' est un tiers des charges de des médias. waaw. un tiers la pour charge fixe bi. Hmm. alors donc euh, pourquoi ñu war fi nekk di épiloguer ci loolu. Hmm. ñoom kilifa wax nañu. Hmm. wax nañ leen man wax naa leen sama position. mënoo fekk nit ak wujjam ñaari jabar yu nekk ci biir kër nga jàkkaarloog benn jabar bi jox ko ñett. ñëw benn ci benn jabar bi jox ko benn. Mm-hmm. bu amee fulla na la ko delloo nañ waxante dëkk. Mm-hmm. mais mais mais mais mais mais directeur delloo gi mënuñ cee dëkk. Euh, s'il vous plaît. oui ça c'est une décision qui me revient. oui j'ai pris ma décision. waaw. et je n'y reviendrai pas. super jërëjëf super. mais da nekk tam ak ay ay ay collaborateurs. dañuy wax tam seen i xalaat. dañoo seen i xalaat de xaalis moom duñ ko fa bàyyi. xaalis moom duñ ko fa baax dinañu ko jëli. ah nañ ko fa bàyyi. ah déedéet dinañu ko fay bàyyi. ñu bàyyi ko fa. waaw ah, nañ ko fa bàyyi. déedéet duñ ko fa bàyyi. nañ ko fa bàyyi. nañ ko jëli de. walaay nañ ko fa bàyyi. moom dinañu ko jëli moom. baax na nii ak ci ne le ah. <laughs> baax na bilaay baax na <laughs> comme comme bugaan gedd nag publiquement gedd naa man tam. geddul de. non non joxe na joxe na joxe na raison yi tax man tam man bëggatuma. ah déedéet nag alaaj alaaj bul daw deuxième de. daw naa de bilaay nañ ko jëli de. bilaay baax na. ah bilaay nañ ko bàyyi ak ñoom ah, kon baax na baax na nañ jël.